d' accord merci beaucoup sa sa question moom question yu bari la à la fois. À la fois ouais. am na sax boo xam ni normalement imaam moo waroon a jëkk. non imaam dinañ ñëw ci moom ci lan la ñu soxla ci xar. ak lu euh, li diine ligle. du xari boppam mais dafa ñu waroon a xutba sax lan mooy tabaski ba pare. waaw mais yow non non non daam moo bëgg <laughs> imaam njëkk koo wax bu ko defee waaw pour wàccee tension bi. pour daay xam ni tabaski du force wala tabaski li ngeen kii kii daam. ku nekk li nga am autosuffisance kañ la ñuy génn ci problème bi ñu nekkee. ci wàllum xar dinaa si ñëw. xam nga euh, comme ni ma ko waxoon sànq adduna moom lépp problème la ak jafe-jafe. Mm-hmm. problème boo réglé rek beneen ñëw. li mm-hmm. question yi ngay posé nii bañ nekkee xale ñun nga xam ni kër gu nekk benn xar lañ fa daan sacrifier. Mm-hmm. booba suñu papa yi ñu ngi doon fayeeku ay vingt mille francs vingt cinq mille vingt mille vingt cinq mille nan la ñuy débrouiller pour am xar moo doon suñ suñu problème chaque année. daan jar ay deux mille trois mille francs. dañ daan yar sax li si gën a bari dañ daan dañ daan dañ ko daan yar pour wax la ni la euh, question la boo xam ni à chaque fois day ñëw euh, d'abord affaire autosuffisance bi ngay wax mooy Sénégal est-ce que am na xar yu doy walla amul xar yu doy xam nga soo seetee cheptelu cheptelu Sénégal euh, nga comparer ko ak suñu yaatuwaayu réew ak suñu suñu suñu suñu population ñun ñu am 7 million et quelques ci ay xar nga comparé ko ak 18 wala 19 millions d' habitants dafay mel ni ñetti sénégalais yu nekk benn xar ci lim la ñu am. Mhm. réew yi ngay tudd muy Mauritanie ak Mali soo jëlee Mali daanaka mën nañu wax ni malien bu nekk am na benn xar. xam nga kon mhm. foofu limu xar yi mooy gën a bari. Mhm. nga dem Mauritanie nga xam ne ñoom 4 millions 500 mille habitants habitants la ñu ñoom daanaka mën nañu wax ni mauritanien bu nekk am na ñetti xar. donc seen li mu xar moo gën a bari par rapport ak seen population sûr alors loolu mooy expliquer ñoom ñuy mën a satisfaire seen demande ba am stock bu des maintenant ñun Sénégal euh, bien que suñu jur taxu ko bari par rapport ak population bi soo seetee évolution bi parce que foofu foofu laa laay ñëw ak yow mhm. soo seetee y a six ans sept ans ay 2017 2018 2017 455 000 xar jóge woon na bitim réew ñëw quatre cent cinquante cinq mille ñeenti téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom. 2017 2017. jóge Mali ak Mauritanie 2018 402 000 xar dugg si. wàññeeku na tuuti légèrement wàññeeku na à peu près 50 000 xar mais ñeenti téeméeri junni xar dugg. loolu mooy période tabaski. 2017 ak 2018 tabaski. waaw daaw soo jëlee daaw parce que mën naa tëb at yi des yëpp li jóge bitim réew dafa wàññeeku ba daaw 228 000 xar kese moo fi dugg. ñaar téeméer junni ak ñaar fukk ak juróom-ñett presque la moitié. Mhm. moom moo fi dugg. te terewul xaru Sénégal doy dañu tabaskee doy. terewul aussi suñu population entre d'ici sept ans depuis sept ans dafay yokk suñu consommation day yokk donc suñu consommation yokku na di jóge bitim réew wàññeeku na de moitié te ñun suñu ju li nga xam ne nii moom lañ soxla woon am nañ ko ba mu des. kon loolu moo lay wan ni suñu production locale programme yi nga xam ne gouvernement bi daf ko def <coughs> muy programme national d'autosuffisance Mm-hmm. ci stratégie nationale d'éradication de la peste des petits ruminants dafa am feebar bu metti boo xam ne moom la wax caaru caaru caaru xar yi ak bëy yi nga xam ne moom la wax PPR Sénégal ak adduna bi fi mu des ci adduna bi yëpp dañu engagé wu pour dindi ko fi d'ici 2030 te mm-hmm. Sénégal déjà amoon si avance moo tax ñu gën a accélérer vaccination bi parce que lu si bëri moom moo koy rey xam nga soo bëggee li mu jur gi bari il faut que nga régler un certain nombre de li nga xam ne day judd di il faut nga fexe ba taux de mortalité bi wàññeeku. donc mhm. loolu am nañ si ay résultat mais il faut nga fexe aussi ba jur mi yokku moom la wax intensification te jur mi pour mu yokku il faut nga am xar yoo xam ne race bi day baax il faut ñu lekk lekk gu doy xam nga lekk gi su doyul xar mi mën na toog ñaari at di soog juraat mais su lekk gi baaxee te at ak genn wàll day day juraat mm. wala mu. ci benn at bi mën na si jur ñaar euh, benn yoon. soo seetee sax xar yi nga xam ne ci taax yi lañu nekk muy xaru laadum muy xaru yar yi ñoom ci benn at bi li si gën a bari dañuy am ñaari doom kon loolu mooy intensification te ci la ñu nekk. race bi ci la bokk lekk gi ci la bokk. ñu amélioré bu baax a baax a baax beneen bi mooy pour yokk limu xar yi mooy nga fexe aussi ba xar mi nga xam ne nii da doon juddu mooy xar yi ci firlu par exemple def. ñaari at soog a mat ñu soo ko mën a tabaskiyee wala mu def at ak genn genn wàll soog a mat tabaski nga fexe ba màggaayam gën a gaaw màggaay bi fekkee raas bi baax na lekk gi baax màggaayam day gën a gaaw xam naa imaam mën na wax ñaata weer parce que tabaski bi weer weer yi moo si am solo du rëyaay beeg yooyu mais weer yi ñoo si am am solo su amee juróom-ñetti weer normalement war nañ ko mën a tabaskiyee mais fekkee màggaay gi gaaw gaaw na ci juróom-ñetti weer yi mu nekk xar mu mat. Mm-hmm. dootoo soxla di ko téye ñaa ñaari at moo tax ci ñaari at yi li nga doon am benn xar di ko am ñaari xar programme yooyu nag ñu ngi koy def xëy na ñu bëri sénégalais yu bëri dañ koo xamul mais programme yooyu moo commencé jur ay ba tey suñu production locale di yokku soo see soo seetee loolu moom moo moo mooy situation bi tey kon ñu ngi ci yoonu autosuffisance autosuffisance nag totale dafa amul fenn ci àdduna bi parce que loo loo mënoo tëj say frontières ak loo loo loo mën a produire mën a produire di nga soxla leneen tey am tubaab yi wala yeneen réew yi mën nañu bay par exemple ceeb am benn façon ceeb boo xam ni moom moo mën a nekk seen dëkk mais am boo xam ni mënu faa am su boobaa dañ koy jëli bitim réew mhm. tey jii ñun am na yoo xeetu lekk yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy defar mu am fi mais ti même variété yi am na yoo xam ni dañ ko dañ dafa am ñoo xam ne dañ koy soxla dañuy obligé jëli ko bitim réew indi mhm. rax si dolli nag Euh, fii dañu nekk ci sous-région boo xam ne dañu bokk ci waa bokk ci CEDEAO Mauritanie moom bokk ci ay léegi aussi muy euh, Union africaine dafa judd bokkuti ci OMC bokk ci OMC aussi muy àdduna bi yëpp mais surtout UEMOA ak CEDEAO muy suñu diggante ak Mali wala suñ diggante ak Mauritanie wala Guinée Guinée Bissau xam nga foofu mënoo tëj sa frontière parce que en réalité du ñun ñooy dem di jëli xar yi di indi li Sénégalais yi dem di jënd di indi tuuti la su matin vingt mille wala vingt cinq mille si lay toll li si des yëpp maliens yi ñoom ñooy décider ñëw jaay si ko fii kon mënoo tëj sa frontière. parce que yow su la marché xam nañu marché. marché la voilà ñun tamit dañ fa am marché. dañ fa am marché. ok Mauritanie bokkuñu ci ñaari organisation yooyu. mais dañu am ay relation de bon voisinage. Mhm. ñu soxla leen ci eh, kii bi eh, jën yi soxla leen ci leneen. Mhm. kon ñoom suñu bëggee jaay si seen i xar mënoo tëj sa frontière. foofu la foofu la foofu la problème bi nekk donc weccoo la en fait commerce international maintenant ñun li nga xam ne mooy suñu stratégie mooy fexe ba am xar yu bari yu doy mais yu mën a jongante ak seen xar yi aussi parce que ñoom dañuy préparer seen i xar ba ñu baax ba ñu rafet donc ñun il faut même suñu indee seeni xar fekkee ñun suñuy xar doy na ba pare mën a jongante su boobaa kenn du jënd seen i xar c'est sûr